nag dinañ def benn MSC de poulet boo xamante ne dañ koy def sous forme de quiche déjà nag commencé woon nañ li nga xam ne mooy préparation plat du jour bi blanc de poulet la ñu soxla woon carotte poivron couleur yi vert jaune rouge am nañu olive oignon persil coriandre ak li nga xamante ne ni nag mooy fromage waa daara bi nga xam ne ñooñu ko proposé déjà ni nag fii dañoo jël carotte bi rek karoot bi la ñuy njëkk a tàmbalee daal di koy dagg nag en petit dé gannaaw bi carotte bi nag ñoree dañu ko dañu ko def mi-cuit mu nekk ci diggante ñor ak ñorul gis nga ni nag moom la ñu jël parce que ñun fii bu ñuy togg ay légumes dañu koy bàyyi ba mu ñor a ñor a ñor ba li nga xam ne da ngay perte apport nutritionnel yi nga xam ne moom nga soxla ci légume bi yépp day def ci cin li déjà karoot bi la ñu jël daal di def fii bàyyi ko nag ba mu à euh, point léegi dañuy ñëw jël rek oignon boo xamante ni dañu ko dagg moom tamit en petit dé fii nag am naa fi piment jaune vert ak persil moom la ñuy sotti mën nañu jël euh, kuddu bi comme ça mu gën a neex a mélanger gis nga ni ñu mélanger fii nag am nañ fi euh, blanc de poulet bi moom it dañu ko sauté ak li nga xam ne mooy huile soda bi sote ko ba mu am couleur ñu daal di def tuuti persil ci kawam ak euh, li nga xam ne mooy laaj comme li ñuy wax chaque jour laaj bi tamit dañu ko euh, war di favoriser ci li nga xam ne moom la ñuy togg def laay la euh, ay ay excusez-moi def laaj bu doy ci li nga xam ne mooy suñu plat du jour yi dina baax te dina baax ci suñu wérgu yaram ba Cheikh lii nag gis nga moom ñuy continuer rek ni mélange bi dañuy ñëw jël moitié fromage bi waaw. ay moo bi moo ma réeroon en fait. nga bëgg ko tubaabal ay moom laa doon wër waa. waxal laaj rek laaj baa nga marché waxal laaj rek xam nga àdduna compliqué wul ñoo ko bëgg a compliqué waxal laaj rek. léegi naa laaj laaj baa nga marché boo ko bëggee nga laaj bu <laughs> pare fii nag benn nen rek laay jël sotti comme li ñuy wax rek. nen boo koy def ci sa plat du jour dafay laaj ah? keroog indi nga ñebbe tey nan nga indi waaw yàlla baax na jeg def ci la rek bàyyi Cheikh gis nga comme wax chaque jour booy def nen danga koy toj à pour xool ndax frais na ou pas ñëw sotti daal euh, yàqu te su boobaa nag mën na yàq sa plat bi nga préparé yëpp mm. gis nga nii def nañu euh, ñetti nen ñeenti rek la ñuy def voilà gis nga nii rek ñu daal di ko ci sotti on mélange le tout gis nga nii nag suñu defee nii ba pare soo àndee gloria nag du jar ngay uti li nga xam ne mooy sauce béchamel wala nga dem di uti euh, crème fraîche moom benn gloria rek ngay jël comme li may wax chaque jour gloria bi mën na dem ci plat sucré comme sale euh, moo tax tey moom laay jël di ko ciy sotti mu nekk euh, daa di sotti li naka bu la neexee mën nga découper waat say poivron couleur mooy vert jaune rouge bi rek daal ko ci def voilà gis nga nii rek ñu yeggali mélange bi boo ko mélangé ni nag ak sa euh, meew gloria ba pare li ciy des rek mooy gis nga man tey dama jël benn moule boo xamante ne nii euh, moom laa utiliser parce ah, que gloria moom lépp la àndal lépp la àndal day dem ci sucré ak salé dama jël benn muul rek damay ñëw rek dama ko beurré entre temps damay ñëw rek daal di ciy sotti waaw. sotti nuru na lu neex de. waaw dina neex incha allah. nuru na luy neex. sotti légèrement rek bàyyi Cheikh. waaw ko ci li nga xam ne mooy sama plat. après da koy dugal fuur c'est ça. rek ak euh, touche final bi nga xam ne mooy fromage. yu daara bi def voilà moom lañ ciy sottiwaat bu baax a baax. gis nga nii rek. su ñu defee nii nag ba ba pare bàyyi Cheikh ay olive rek la ñuy jël man nag tey dama préféré fii am na benn cocktail d'olive boo xam ni am na oignon blanc am na olive noire am na olive vert moom laay jël rek daal di ko ci sànni voilà gis nga nag buñ ko ci sànnee nii ba pare fekk nag préchauffé nga sa four beku à 180 degrés da ngay ñëw rek daal di ko ci en enfourner lii nag boo ko ci dugalee bàyyi Cheikh euh, quinze à vingt minutes rek mu daal di ñor parce que déjà poulet bi ñor na. carotte bi ñor na légumes yi am ci biir yëpp ñor na c'est juste rek pour mu gratiner ànd ak li nga xam ne mooy fromage bi ak meew gloria bi nga xam ne moom lañ ko mélangé nga dugal sa four quinze à 20 minutes mu daal di ñor nga génnee rek déguster bàyyi Cheikh ci kanam. jëw de Ah. dama ne booy togg dangay ngay mel ni kuy de presse après nga daal di koy mélangé ba nga ko mélangé nga daal di koy daggate après nga garaatini ne ko après nga def ci laaj bi après nga dem laali laali ok d'accord voilà <laughs> tu bien récité sa wu tey bi